doy nga ñu sëkk yaay suñu buur allahu allah du ñu jaamu ku la mooy allahu allah la ilaha illa allah allahu allah doy nga ñu sëkk yaay suñu buur allahu allah du ñu jaamu ku la mooy allahu allah allahu allah ah xamal yàlla du moroom. allahu allah ah xamal yàlla du moroom. allahu allah. gannaaw santaat yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ñu ngi leen di nuyu nuyub lislaam te mooy yenn jàmmi yàlla wàcc ci sunu kaw ñun ñëpp.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 te mooy faatu le président de la république d'Égypte Mohamed Mohamed Morsi rahimahullah yan na ko yàlla yërëm lii mooy wane ne jullit yi dara mënul leen a boole lu mooy ak lislaam bu doon deret wala der mën na am duñu daje fii bu doon réew mën na am duñu daje fii bu doon langue mën na am duñu daje fii waaye li ñu yeew ak li ñu booleek moom mooy kalimatu laa ilaha illa bi nga xam ne alquran moo ko confirmé innamal muminuuna ixwa fii gis nañ fii cadre yu mag ay boromi xam-xam ñoo xam ne macha allah ñëpp ñëw nañ pour bokk ak ñun événement bi yëg ne ñoo ko moom xëy na balañ fiy jóge ko kilifa yi fi teew danañ def benn cadre bu restauré pour yu mel nii bu amatee réew mi bañ a bokk ci ñuy des gannaaw bu amatee rek ñu joxe ay information am fu ñu dajee pour def loolu salaatul xaayib nag yonentu moo ko def sallallahu alayhi wa sallam mooy ca sahaaba yam yi ci mooy abash de coppi ba najashi génnee àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko def salaatul xaayib kon loolu am nañ ci référence am nañ ci tegtal am nañ ci dalil ci dundug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doonte moom rek nag la ko def ci mbooleem ñi génn àdduna moom rekk la def salaatul ghaib waaye daal mën nañ ci def istidlaal ba def salaatul ghaib Muhammad Mursi rahimahullah kon li ñuy def mooy bu ñu ko jullee ba pare dana am ay discours yoo xam ne benn bi arab la benn bi français la boobu nag ñu firi ko ci wolof su ko defee su fekkee da dara xaj na fi ñu seet bu fi dara xaju rek ñun ñëpp ñu nangu discours yooyu xam ne ci doon wax ñëpp la waxal euh, ñëpp la présenté ndax fi tey li fi teew ci ay kàngam macha allah buñ doon wax tey ba ëllëg foog naa mën nañ fi fanaan te du jeex waaye nag comme al muslimuna te te tatakaafau dimaa'uhum wa taqumu bi dimmatihim adnaahum wa hum wa hum yaddun ala man siwaahum buñ sukkandikoo ci xadis boobu danañu doy incha allah kon nag léegi ñu jublu ci julli gi natasawar gis ma cheikh donte gisuñu ko ñu di ko xalaat def ñaan yi fi ñoom ñëpp ay arabisant lañ macha allah bu ko defee ñeenti rakk la comme ni ngeen ko xamee ñeenti kabar la comme ni ngeen ko xamee incha allahu kon nag ñu ngi ciy jublu yéena Mouhamad Mursi yan na ko yàlla xare aljanna ji gën a kowe yan na ko yàlla yërëm te génn ak addunaam bi yan na nekk yaxvatan li hadi l umma al islamiyati yan na nekk tawiyatan li hadi l umma al islamiya yan na nekk taabiatan li hadi l umma al islamiya yan na nekk najahan baahiran li hadi l umma al islamiyati al mazluma fi kulli qadiyatin min qadaya al xayaa wasalaamu aleykum wa rahmatullah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 الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله des associations islamiques, Messieurs les membres de la société civile, Monsieur les imams et les prédicateurs. Euh, tout d'abord, je voudrais faire une petite comparaison entre deux décès, celui de Imam Ahmad ibn Hanbal en 241 de l'Égypte, correspondant 861 de l'ère chrétienne car l'histoire se répète souvent avec ses grandes leçons. Imam Ahmed Ibn Hanbal vivait une épreuve tant physique et morale très semblable et très similaire avec celle que Mourchid vivait. au moment de cette épreuve, il y avait un grand intellectuel du côté du pouvoir nommé Muhammad ibn Abi Douat. Euh, Imam Ahmad ibn Hanbal a eu un jour, après être très vexé, à lui dire que la mort va marquer notre différence. Ibn Abi Douat, avant de mourir, il avait été destitué de toutes ses fonctions. tous ses biens confisqués. Il avait été attrapé une par paralysie. Euh, le jour de sa mort, comme si un sou et euh, ou bien un rat euh, venait de quitter ce bas monde. Euh, alors, le propos de l'homme de Dieu, Imam Ahmad Ibn Hanbal, la mort va nous séparer, s'est révélé après son décès. On dit que Imam Zayad disait que depuis l'apparition de l'islam, on n'a jamais enregistré, on n'a jamais vu une affluence appelée la mort d'une personne comme celle que nous avons vue après le décès de Imam Ahmad ibn Hanbal. Il avait euh, énuméré euh, alf alfay alf wa sab'umia ce qui signifie 2 millions et personnes mais je crois que du point de vue du nombre mais du point de vue de la superficie notre regretté Mourchid aussi n'a jamais égalé euh, de, partout dans le monde On a organisé des prières al ghaib comme celle que euh, nous, sommes, nous, venons d'effectuer, même ici au Sénégal. Donc j'ai l'immense honneur euh, de vous lire la déclaration après cette succincte comparaison pour dire que la vérité finit toujours par triompher. Ceux qui combattent les hommes de Dieu finiront toujours par tomber dans l'oubli et dans toutes sortes de malheurs. Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, paix et salut à notre prophète Mohammed ainsi qu'à sa famille. Nous, les associations islamiques, Oustaz, Olema, Imam, prédicateur islamologue, chercheur et écrivain, ainsi que toutes les personnes ici présentes aujourd'hui, avons effectué la salatu al-ghaib à l'endroit du docteur imam euh, Moursi ancien président ou bien le président légitime ancien président légitime de la République d'Égypte. Comme l'avait fait notre modèle, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors de la disparition de Nagassi Négus. Et en martyr ce lundi 17 juin 2019 au tribunal du Caire à l'âge de 67 ans. Lui, il faut le rappeler, qui était le, qui était, qui est le président, qui est le premier président élu démocratiquement en Égypte. Il a été renversé par un coup d'État. Ici aussi, j'ai l'habitude de dire les pays musulmans Euh, on peut les comparer comme un mouton. Mais ceux qui veulent créer des problèmes à ces pays-là euh, ne veulent, pas que la tête euh, de, de, de ce mouton-là soit en harmonie, en conformité avec son corps. Lui, Moursi, vraiment, quand il avait vu que le mouton est en train de trouver la tête qui lui convient, ah là, ils ont tout fait pour décapiter cette tête-là. Mais Inch'Allah, comme nous l'avions dit, la vérité finit toujours par euh, triompher. C'est pourquoi il avait été renversé par, euh, renversé par un coup d'État. Il est resté en prison pendant dix pendant six longues années, des années vraiment de souffrance morale et physique. Finalement, il est décédé à cause d'une négligence médicale de la part du régime militaire égyptien. Euh, le président a toujours lutté pour la légalité, pour la démocratie et pour le progrès de son peuple et de la Oumma et de l'humanité tout entière.

auprès de leur Seigneur bien pourvu. Euh, ici aussi, nous, toutes les associations islamiques et les personnalités ici présentes, nous exigeons à l'endroit de la communauté internationale de mener des enquêtes impartiales, libres, pour élucider les circonstances qui ont entouré, qui ont entouré euh, sa mort. Ensemble, nous prions pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne et l'accueille au, au, au paradis éternel. Et nous présentons nos condoléances attristées à toute sa famille, à l'ensemble du peuple égyptien, à ses sympathisants, à tous les musulmans du monde. Inna lillahi wa inna ilayhi sa discours bi am na solo surtout digression bi ñu ci dugal lu am solo la kon léegi ñu bàyyi professeur Arfang juuf di membre ci association islamique di ku ñëpp xam ci taxawaayam moom moo ñu liiral incha allah discours arab bi fal yatafaddal mashkuro salaamaaleykum yuqtalu fi sabilillahi amwaat bal axyaun walakin la tashcuruun sadaqallahu alazim docteur Mouhamed Morsi shahidu sariati walsharciya bisabrin wa thabaatin qalla nadiruhuma yartaqi الرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية الدكتور محمد مرشي شهيدا إلى ربه دون أن يعطي الدنية في دينه ودنياه هذا النظام الانقلابي القمع والاستبداد والتسلط والارتهان لقوى الثورة المضادة والعمال للصهاينة يرتقي شهيدا مؤكدا أقواله التي طالما رددها في حفظ الثورة وأجيالها ودماء أبناء الشعب المصري العظيم لتكون شهادته رو لتكون شهادته وروحه الطاهرة هي منتهى منازل الصدق والثبات على الحق حتى يرتقي شهيدا ليرقى ربه ليلقى ربه صادقا فيما عاهده عليه غير مبدل ولا مغير كان إمام مرسي أو الرئيس الشرعي لجمهورية مصر يقول ثمن الشرعية حياتي إننا إذ نتقدم إلى عائلة الرئيس الشهيد wa kullu ahraari alaalam wa li shaabi almasri almuslim والعالم الإسلامي والعالم الحر لا نعزي ولكن نعزي أنفسنا لأن المصاب لنا جميعا نعتبر أن النظام الانقلابي في مصر وأجهزته القضائية والأمنية تتحمل المسؤولية الكاملة li amaliyati ixtiyaal albatii wal mumanhaj allati awdat bi xayaat السيد الرئيس محمد مرسي كما نعتبر السقوط الدولي التي تدعي الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان عن جريمة الانقلاب بداية ثم عن جريمة اختطاف الرئيس الشرعي ثم عن مسرحية المهاكمات الهزلية نعتبر كل ذلك مشاركة في هذه الجرائم ضد الإنسانية وخروجا عن كل المواثيق الدولية وكل هذا لن يزيدنا إلا ثباتا على الحق وتمسكا بالطريق والنهج الذي صار عليه الرئيس الشهيد محمد المرسي hatta nalqaahu fi ljanna ala sururin mutaqabilin kama nad'u kulla almunazamati alhuquqiya والدول الحرة وعلى رأسهم السنغال وأحرار العالم والحكومات الشريفة أن تطالب بالتحقيق دولي علني شفاف في هذه الجريمة المتعمدة alwaadiha wuduha alchamsi fi rabiati nahar man huwa Mouhamed Morsi huwa awalu raisin madani muntaxab min gaalibati shacbi almasri huwa alrais alwahid allazi yaxfazu alquran هو أحد المع... هو أحد العلماء المعدودين في الهندسة الفيزيائية كان مدرسا في ناسا في أمريكا وترك كل ذلك يعود إلى وطنه لخدمة دينه وخدمة أبناء أمته محمد مرسي لم يتقاضى راتبه منذ أن كان رئيساً ila an unquliba alayhi lam yataqad ratibahu wa ja'alahu tabarru'an li misanati dawla عاما كاملا هو الرئيس المصري ولكنه لم يبت يوما واحدا في القصر وإنما كان يبيت في شقته المستأجرة ويكفيه أن الظالمين منعوه منعوا إقامة صلاة الجنازة على هذا الرجل الكريم ولم يسمحوا للوسائل الإعلام بحضور جنازته إلا الوسائل الإعلامية الإسرائيلية فقط اليوم ينضم السنغال إلى الدول التي أقاموا صلاة الجنازة على سيد الرئيس محمد المرسي وصلي على هذا الرجل حسب الإحصائيات الأمس على مئة ألف مسجد محمد مرسي كان يقول لبيك يا سوريا لبيك يا سوريا لو كان الرئيس مرسي موجودا ما حدث في سوريا ما كان أن يحدث محمد محمد مرسي في الحياة وكان يقول falastin lastum wahdakum sa na'malu hatta tajidu istiqlalakum wa haula ar-rijal hum allazina ukhtutifu wa qutilu wa sujjinu min almuminina rijalun saddaqu ma ahadu llaha alayh fa minhum man qada nahba wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf Euh, Seydi Arfan sa wax ji daw na yaram waaye li nga wax rek mooy dëkk lu mat a bàyyi xel la léegi ñu jox Mouhamed Lamine Dramé non non Muxtaar jëfal jëlal jëlal jëlal ñu jox professeur Makhtar Seck Makhtar Kébé bokk ci rumuzul qiyaada al islamiya fi hada shaab moo war a tënk li professeur Arfan Ba Arfan Diouf wax léegi mu tënkal ñu ko incha allah foog naa ne tàkkusaan mu ngi jege si buñ paree ñu julli takkusaan dal di yeweeku incha Seydi Rais kon nag alkalimatu bayna yadaykum Seydi Maxtaar asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam noo ngi sant yàlla bu baax moom mi nu baaxee ñu daje daje bi jullit génn àdduna jaaxalu ko. Mm-hmm. ndax yonent bi lañu wax ni. innaka mayitun wa innahum mayitun donc yow dangay génn àdduna ñépp dañuy génn àdduna boroom bi waxoon ñu ne wa ma muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul afa in maata aw qutila nqalabtum ala aqaabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'an wa sayajzi allahu shakirin loolu mooy épreuve bi loolu mooy lettre bi loolu mooy message bi message bi moo ne naka jekk démb ba tey góoru yàlla yi ci waar wi rekk la ñuy daanoo du ñu daanoo fenn wa ka ayyin min nabiyyin qaatala maahu ribbiyuuna kathiir fa maa wahanuu limaa asaabahum fi sabilillah wa maa daufuu wa ma stakaanuu wallahu yuhibbu saabiriin وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين démb ca yonante ya naka jekk lii moo doon am mooy bu nu demee ba jaaxle ci yoon wi yoon wi mu jël ngir am ndam ñu nu foog ne ñooy ñu ko porté dañuy ak ñoom faagaagal leen def nañu ko ay yonent def nañ ko imaam Shahid Hassan Banna def nañ ko Seyid Abdul Adir Quuda def nañ ko al Shahid Seyid Qutb waaye benn bu ci ne bu kilifa daanoo bu fekkee ne yoon wi nekk na fukk loolu multiplier na ko def ko junni loolu mooy défi bi nga xam ne bii moom dañuy xaar tey mooy noo ci contexte boo xam ne bi àdduna dafa dajale dooleem yépp ngir faagaagal yoon wi ne na ko jeexal tey loolu mooy expliquer acharnement bi am ci turc loolu mooy expliquer question palestinienne bi nu nu ko bëgg a loolu mooy expliquer xiiratu qiyaadatil ixwaan nga xam ne ay junni lañu ñu dugal leen ci kaso bi organiser ngir likide leen ci façon boo xam ne duñu wax ne diw moo leen di rey waaye dañu leen di bàyyi ñuy daanu kenn par kenn waaye li am solo mooy julli gi nuy julli ci alamal islaami di ñaanal a Shahid Mursi li muy wane mooy message la ñuy joxe adduna bi ne amul benn jullit bu jaaxle. Allahu akbar amul benn jullit bu tiit. allahu akbar amul benn jullit boo xam ne bii ne na dellu gannaaw ak défi yi li muy metti metti mooy jullit yëpp tey la ñu gën a takku ngir yoon wi yegg fa mu jëm loolu mooy lu ñuy woote ni tey mooy Saïd Mursi dafa joxe leçon ci kane amul marchandage ci suñu projet bi. suñu projet bi rek mooy projet bi nga xam ne mooy bi vital pour umma bi. suñu projet bi mooy xettalu àdduna. donc suñu projet bi moom la ñuy continuer di ci di ci di ci di ci di ci liggéey. tant que nattu yaa ngi metti tant que jafe-jafe yaa ngi metti waaye fekk as sabaat moo ngi am. fekk ak sabru moo ngi am yàlla dana nu defal ndam loo xam ne lii dana nu bett bu def yi mettee rek. li muy tekki moo di an nasru qarib te loolu la jàpp mooy nongi ci some ci metit waaye some boobu bu nu ko bu nu ci yàggee incha la cay toppe moo di nasrun qarib loolu la ñaan borom bi mu defal nu ko nu ànd te sago kenn ku ci ne loo doon def ci woote jëme ci yàlla lii gën a doon sa takkaay waaw lii gën a doon sa ndëgërlaay lii gën a doon lu lay motiver ngir ñu xam ne lii nga xam ne nit ñu baax ñëpp ci lañu daanoo loolu du doon bir moo xam ne mii dañu koy sàggane noo ngi woo waa bi yëpp noo xam ni maandu mooy doxal àdduna te maandu fu mu ñàkk ku foog ne mën nga fa am développement da ngay nax sa bopp ku foog ne mën nga fa am stabilité da ngay nax sa bopp te maandu mooy alsiisi mii nga xam ni mooy sababu li xew nii yëpp ñu topp ko comme nu ñu toppoo képp koo xam ne kii def na njombe lu toll noonu def investigation adduna bi am na ay jumtuwaayam yu ko maye réew yi nga xam ne ay réew yu moderne yu libre depuis ñetti at ñoo ngi sakku ñu dem ci kaso misra yu xool lii nan la mun a demee ku mokkal alquran nekk un brillant professeur d'université nekk parlementaire boo xam ne bii ñëpp jox nañ la cër ñëw nekk président de la république boo xam ne bii ci gouvernance kenn amul fu mu la jaar nga am projet yoo xam ne yii mooy xottalu xeet bi defaat ko ci këru positionnement international ñu war la xëy dugal la ci kaso ci façon boo xam ne bii ñi nga xam ne duñu def kirim sax kenn tëjatu leen noonu ci àdduna alors loolu bu ci àdduna noppee mooy noo ngi ci ñoo ngi ci situation bu catastrophique situation boobu mënul wéy situation boobu mënul continuer il faut ñu liggéey mobiliser suñu doole mobiliser suñu force ngir defi bii nu yëkkati ko te défi bi attan nañu ko mun nañu ko yëkkati nun la ci àdduna bi yaakaar nun réew yi nga xam ne ñoo nekk ci réewu périphérie bi réew yi nekk ci xalbul alamal islaam yi dañu paralysé mënatuñu am initiative ñoo ngi ci périphérie historique bi nga xam ne mooy doxal àdduna réew yi ñu yaakaarewul woon na mën nañu jël relève tey moom la àdduna xool di leen yaakaar réew yooyu ñun suñu réew yi ci lañ bokk suñu organisation yi si lañ bokk suñu borom xam-xam yi si lañ bokk nañu am taxawaay bu nu dol du léegi nii loolu mooy solo bi mooy nan la ñuy fexe ba bu ñu fi jógee kenn ku ci ne motiver waat xeet bi bañ leen yox yoxiloo comme ni ko oustaz bi waxee waaw ba mu am de waaw lii na doon motivation boo xam ne bii day tax ñu am courage supplémentaire gën a takku dem ci kuréel yi liggéey bu nu amee li nga xam ne mooy résultat wu liggéey ci gox bu ne loolu mooy cumulu résultat bi nga xam ne bi mooy génne umma bi ci situation bi nga xam ne ci la ne bëgguma guddal damay jox Seydil Amin mu tënk wax ji bon bu ko defee ñu ñaan yàlla mu defal ñu tawféex ba nga xam ne dañu fi daje yeneen daje te fekk na umma bi jëlaat na aafiyaam jëlaat na dooleem jëlaat na jàmmam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu euh, alhamdulillah sayid xutbu mu baax ma daan na wax ne inna xatmiyatal wilaada la tatanaafa alamal magab doom bu waree juddu ak lu juddu gi yomb yomb fokk deret jiitu ko kon nag jërëjëf professeur Makhtar kebe ak ñu fi jot a jël kàddu yëpp comme docteur Lam di amiru jamaati ibad jamaati ibad rahman mu ngi fii ñu may ko walaw daqiqatayni mu sànni ci kàddu su ko defee ñu noddu ñaanlante yàlla julli waaw waaw waaw jàkkoor nee na amul fi kàddu kon nag alhamdulillah ci simplicité bi ak facilité temps bi kon nag alhamdulillah adduna bi yëpp ñu ngi leen di seedeel ne Sénégal axraar yi fi nekk yëpp gor yi fi nekk yëpp ak ñi bëgg lu baax ñëpp ak ñi nga xam ne dañuy xeex pour doom aadama am liberté am aqam ñoom ñëpp ñu ngi seede ne ñu ngi ci gannaaw Mouhamed Mursi ñu ngi seede ne ñu ngi koy ñaanal yàlla ñu ngi seede ne la am Égypte ak la fay dox d'accorduñ ci tey te duñ ci d'accord ba mukk waaye nag nañ liggéey comme ni ko professeur Makhtar waxee gën a benn la suñu kaddu gën a benn la suñu doole gën a benn la suñu jublukaay xam ne ñun ñëpp li ñu tax a jóg rek mooy kaddu laa ilaha illallah triomphe te dana triomphe ndax batola gaal la waaye itam géej la goo xam ne kenn mënta tere ay vaggam dem fañ war a dem diina ji lii rekk ko jik réew ma diina joo xam ne ca lañ rey Ousmane ibnu Affan rey ca Ali ibnu Abi Talib rey ca Omar ibnu Alxataab rey ca généraux yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ca Mauta muy Abdallah ibnu Rawaha Jaafar Sadiq rey ca Zayd ibnu Zayd ibnu Haarisata ku ci yaakaar noflaay yaa ngi nax sa bopp kon nag maxtaar ñu ngi lay gërëm ci leeral bi bu kenn yox yoxi bu kenn yo njox ñun ñëpp nañ gën a beesal kaddu gi gën a beesal jaayante suñu digganteeg suñu borom nekk ci yoon wi ba daanu ci biir yoon wi ñu yóbbuñ ñu daje yàlla mu dugal ñu aljana jege na kawe mm. nda ala inna silaatallahi ghaliya marchandise am yàlla du lu yomb jas ne rek boo ko bëggee da ngay dajale xaalis bu bari mbaxana mu rafet boo ko bëggee xaalis bu bari la naka nag aljanna joo xam ne doo fa gis coono doo fa gis naqar doo fa gis métit kon nag ñu ngi leen di gërëm bu baax di gërëm Cheikh Abdourahmane Youssoufa eh, ñun ñi bokk nañ ñi ko initié waaye moom itam taxaw na ci démb ci lañ def émission ci Égypte ak la fa ku ko déglu ci 88 point 1 danga ko déglu vers minuit tey ci lañ def xutba lii mooy tax li ma wax ci xutba bi dafa mel ni maxtaar daf ko doon déglu yàlla xam na loolu ni mu nosee yow dafa jéggi dayoo kon nag ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp di gërëm ndaw ñi di gërëm jeunesse bi nangeen ngeen organiser wu ànd ak seen i kilifa ànd ak seen i borom yi xam-xam te bañ a nekk ci ay détails détails taxatul ñu jog léegi toll nañ ci phase boo xam ne phase bu métti la détail du ko réglé ak euh, yox yoxi du ko réglé li koy réglé mooy taxaw ak euh, étude bu poussé dal di am yoon wu leer dal di am itam njiit yu wér te alhamdulilah am ngeen ko ñii amul ci kenn ku mënta yore réew tey amul ci kenn ku mënta yore continant Afrique loolu nag nañ ko bàyyi xel jàppalante dimbalante Cheikh Abdourahmane ñu ngi lay gërëm di sant bu baax a baax a baax kon ñu noddu julli yeewi doomu aadama yi ñu dal di demaat ba beneen yoon Dramé waaw kay euh, inspecteur euh, kan nee na wala yazaluuna yuqatiluunakum xata yaruddukum an diinikum waaye nag in istataaw in istataaw ja nag mooy problème danañ ko def waaye waaw waaw in istataaw loolu loolu waaw loolu daal moom danañ ko def waaye duñ ko attan dañ ko def waaye duñu réussir buñ yaakaare nag rey Mursi mooy tax ñu réussir wallaay nax nañ seen bopp Hassan Banna bañ ko reyee dañ noon yëfee jeex na yëfee gën a tàkk yëfee gën a jëm ci kanam ñu ne bépp shahid bu daanu rek am na million shahid yu taxaw pour war a daanu pour war a joxe seen bakkan kon nag ñu noddu incha allah te di leen gërëm di leen sant di ñaan yàlla lii lu réussir la lii lu ama am solo la alhamdulillahi rabbil alamin wasalatu wasalaam ala rasulina muhammad ibni abdillah wa aqiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wallahu ghalibun ala amri walakinna akthara annas la ya'lamun euh, ismi alhaj Mouhamed Al Amin Dramé euh, imam wa i'lami fi Sénégal wa nahnu muslimuna fi Sénégal بمختلف تياراتها تيارات إسلامية وتيارات المتصوفة اجتمعنا اليوم في هذا الميدان لأداء صلاة الجنازة صلاة الغائب على الرئيس الشرعي لجمهورية مصر الدكتور محمد مرسي رحمه الله تبارك وتعالى ونحن في هذا اليوم نريد أن نرسل رسالة إلى العالم إلى العالم بأكملها wa fi muqaddimatihim ad-duwal al-kubra wa naqulu lahum inna alladi qatala ash-shahid docteur Mohamed Morsi laysa Abdul Fattah as-Sisi innama hadha al-abdu abdun ma'mur min asyadihi walladi qatala Mohamed Morsi huwa al-istikbar al-alami Mohamed Morsi ta'amarat ad-dunya alayhi qatalatu Amerika walladi qatala Mohamed Morsi huwa ittihad al-Europe walladi qatala alchahid Mouhamed Morsi huwa al ittihadu al ifriqi kullu duwal al kubra duwal al ifriqiya Europe Amérique taxaalafu wa taamaru ala qatli docteur Mouhamed Morsi alladi nafada hada al muxatat al xabiis addani al xasiis huwa hada safaax al mutakabbir al firawn firawn hada al asr Abdul Fattah Sisi damarahu llahu tabaraka wa taala wa naxnu fi yowmi aljumaa fi saacati al ijaaba nasalu llaha tabaraka wa taala an yantaqima للشهداء على هذا العبد اللهم عليك بعبد الفتاح سيسي اللهم عليك به ومن معه اللهم أرنا فيه يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وأبي بن خلف اللهم انتقم للشهداء اللهم انتقم لمحمد مرسي عبدك حافظ لكتاب الله اللهم انتقم لدكتور لشيخ محمد مهدي عاكف الذي قتلوه وهو يعاني مرض السرطان في السجن لقد قتلوا أكثر من 800 شخص كلهم مرضى ومنعوا عنهم الدواء حتى استشهدوا في السجون هناك أكثر من 60 ألف من أبناء مصر وهم قابعون في السجون اللهم أطلق سراهم يا رب اللهم عجل بهلاك هذا الظالم هذا السفاح هذا المستبد والذي قتل محمد مرسي هو ترامب ترامب wallazi qatalahu huwa Muhammad bin Salman huwa allazi allazi qatala Muhammad Mursi huwa Muhammad bin Zayed walakin Allahu aqwa minhum yawmuhum qaribun insha Allah wa inda Allah satajtamiu alxusuumu sataqifu bayna yaday Allah Muhammad bin Salman wa hukuumatu Al Saoud wa Al Zayd kulluhum sayaqifuuna amaama Allah wa sayus'aluuna limaazaa qataltum haazal abdal muslim limaazaa qataltum haazal abdas saalih لماذا قتلتم هذا الحافظ لكتاب الله نحن نجتمع هنا في السنغال ونقول للدنيا إذا كانت حكومة مصر منعت الصلاة على الرئيس الشهيد الدنيا كلها صلت عليه وستظل تصلي عليه وسندعو له بالمغفرة والغفران وسنسير على طريقه إن شاء الله أنتم قتلتم محمد مرسي وهناك آلاف محمد مرسي في مشارق الأرض ومغاربها لن تسقط الراية بمشيئة الله وراية الإسلام وراية القرآن وراية العدالة وراية الإحسان ستظل مرتفعة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إن كنتم قد أغلقتم الباب أمام المسلمين في مصر هناك أبواب ستفتح في مشارق الأرض ومغاربها وأقول كلمة لإخواننا من العرب الله أنزل عليكم هذا الكتاب لمجدكم ولشرفكم لن تتركوا المسلمين لن تخسلوا إخوانكم كونوا قفوا معهم قولوا كلمة الحق يا علماء الأزهر أين أنتم ويا علماء السعودية أين أنتم ولو الله سبحانه وتعالى يقول الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله لا تخافوا من هؤلاء الظلمة هؤلاء عبيد لا يملكون ضرا ولا نفعا ويقول هنا في السنغال شيخنا أحمد بمبا خادم الرسول النفع وضر من الرحمن ليس من البيضان والسودان النفع وضر لا يجيء من من من هذا السفاح عبد الفتاح السيسي ولا ياتي ابدا من حكام الخليج ابدا النفع وضر من الرحمن قفوا مع اخوانكم قولوا كلمة الحق ادعوا لهم ادعوا للشعوب أن يقفوا مع المظلومين وأن يقفوا ضد الظالمين هنا في السنغال تجمعات الإسلامية والحركات الإسلامية والطرق الصوفية هذه الكلمة نريد أن نوجهها إلى العالم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته wóor nañu ni yàlla rekk moo tax ngeen jóg loola xam nañ ko bu baax a baax waaye nag woote ñu wuy si dafa jar sant gërëm ki la wuy ndax julli gi ñaan la kenn ku ne mën nga toog sa kër def ko mu egg amaana sax ca la doon gën a amee solo ci wàllu ñaan kon bu ñu wootee ñu xam tey di àjjuma ñu bare bari ci yéen di ay imam jullee seeni jumaa jiite fa daw topp tàngoor wi ak naaj wi ñëw loola mëneefu leen cee bañ a gërëm mëneefu leen cee bañ a ñaanal loolu yëg-yëg bu rëy la boo xam ni yàlla rekk am seen fay yàlla na nu fayal leen tey wóor na nu ku fi teg tànkam ku ne yàlla dong nga ko tax a jóg juraxul dara kon loola bokk na ci li tax liggéey bi am solo ndax mbooloo mu toll nii ku ñu jullee bu doon ñii dong def naa doy na sëkk di mbooloo mu bisu ajjuma mbooloo mu ñëpp ci jumaay lañ jóge jubal si fii mbooloo mu la wóor ni ñëpp kenn ku ne ci ñoom yàlla rek ko tax a jóg bu doon docteur Mursi ñii rek a ko jullee doy na sëkk te wax nañ ci discours léegi nii téeméeri junniy jàkk jullee nañ ko téeméeri junniy jàkka jullee nañ ko te nag boole wuñ ci bayal yi jàkka lañ wax fii bayal la defe naa ni jàkkay toll bayal yi toll na noonu kon nag nu ngi sant suñu borom bu baax. sant suñu borom di leen gërëm lii rek lañ mënul ban a wax ak jataay bu yàgg bi yàlla yàlla fayal ñu leen yàlla yàlla barkeel yàlla na yàlla taxawu leen jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ah yàlla na fi gëj nag yàlla na fi gëj yàlla na ko yàlla taxaw ci njabootam ndax njaboot la gu tumuranke nañ ndax njaboot gu sa way jur génn àdduna ñu la doo ca jot doo ko laal doo ko jege rob ko faj rob ko njël mbooleem journaliste yi àdduna ñu toll kenn rek lañ may fekk ko muy benn journaliste bu Israël xanaa ñu ko wax ne kaay leen filmer ba seen xel dal ndax ki leen deen tiitloo nii lañ ko def loolu moo tax ñu woo Israël benn journaliste kese lañ ko bu télévision mu fekke ko filmer ko def ci rapport man seetaan naa ko bu journaliste bu Israël kese du Égypte du feneen benn journaliste xanaa kon mani booba ñu ngi Israël ni ki leen tiitloo woon kaay leen ndax moom rekk ka mus a ñimee taxaw ni Israël na nga xam ni ginnaaw tey dootu gas rek ginnaaw tey gas sa wéetatul moom moo xam loolu kon nag woo nañ Israël ne kaay leen film gis niñ def waa ji ndax seen xel da seen xel dal taxul seen xel dal ndax nit koy topp ba rey ko taxul nga ñime ko ba ni kenn du ko jullee kenn du ko ru bëccëg fam noonu nañ ko fa denc nga ne déedéet ba léegi ñemewuñu malgré mi ngi ci suuf parce que xam na ñi mi ngi ci suuf mais jëmma ne ci suuf joo xam ne ñun suñu jëmm yooyu yëpp ñoo jëmmi xar yi ba yeeyam foofu rek lay mujj waaye lañ ragal ci moom xam nañ loola mi ngi ci kaw suuf tey la gën a bari tey la gën a dëgër kon nag docteur bi si libetu ko Usaama doomam moo wax ni bi suur biñ ko biñ ko falee mu ne président dafa ñu ne ko bàyyi maa ngi lay ndokkeel xaw ma woon ni liy sowe way néew doole yi ci sa loxo lay jaar nee na ko ban sowe taas ngay wax mu ne ko yàlla fal na la defe naa ñi néew doole ñëpp tey da nga leen mën a taxawu mu ne ko tay la mbir mi gën a metti tey lay door a commencé mu ne ko koñ sowetaas woowu kañ la mu ne ko bis boo gisee sama deret ñu tuur ko xamal ne keroog la sowetaas bi tàmbali kon Mboursi dara bettu ko ci loolu dara bettu ko ci dara bettu ko ci lii kon nag ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp nii rek la jiim nañ ko toroxlaay lott nañ ci loolu àdduna bi yëpp ñeenti réew rek lañ tere ku ko fa jullee ñeenti réew kese juróom la woon menn ma ñoom dañoo fipp jullee ko émirat arab arabie saoudite jordanie israël ak égypte gim dëkk juróomi réew yi rek lañ tere ni kenn du ko fa jullee Jordanie ñoom dañoo fipp jullee ko par force Égypte nag ñoo topp ndigal ak Arabie Saoudite ak Émirats arabes ak Israël ah démb ci turki kese juróom-ñett fukki ville ak juróom jullee nañ ko juróom waxuma la juróom-ñett fi eh, jàkk juróom-ñett fukki ville ak juróom ci Turquie kese kon koya bu nekkal yàlla moo wóor koya bu nekkal yàlla keneen ku ñu nekkal ak ku ñu waxal ku yàlla nu ngi nax sunu bopp jaru ko bu nekkal yàlla est-ce que Mursi duñ ne alhamdulilah bi mu demee nii bu fekkan terewuñ ko ko jullee lii doon am xoolal lii am ni waxuma la sax suñu julli suñ ñaan mais xoole ñi fi gisa tey am ñu ñetti at gisewuñu juróomi at gisewuñu juróom benn at gisewuñu ñaala dajale leen fii tey ci yàlla kese loolu loolu tere guñ tere koko ko moo jur li jur ko Sénégal ak feneen ak feneen kon ñu ngi jéggalu ci guddal gi euh, wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabil karim إخوة الحضور وإخواننا الذين يشاهدون هذا البرنامج في كل مكان من العالم الإسلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا نحمد الله عز وجل أن من علينا بأن اجتمعت ثلة مؤمنة تؤمن بأن هذه الأمة أمة حية وأمة دعوة وأمة استجابة للاجتماع هنا في هذه البقعة المباركة لقيام بصلاة الغائب أداء للواجب الواجب الديني والواجب الأخوي وننتظر فرصة سانحة لنعزي إخواننا في مصر أسرة الفقيد الشهيد محمد مرسي الذي رحل عن هذه الدنيا واقفا على قدميه aba illa an yakuna shahidan wa sayakunu yawma alqiyamati shahidan kadhalika ala ulaika adh-dhalama wa nasal allah azza wa jalla an yaftaha ala almu'minina fatan qariban wa nasran mu'azzaran bihaythu tantafi hadhihi alghuyum ad-dakina التي تغطي العالم الإسلامي وبهذه المناسبة كذلك nuazzi kulla insanin yaamal fi mashariqi al ardi wa magharibiha li ilaai kalimati llahi wa li rafi raayati alislami wa li iadati izzati almuslimina wa sudadihim wa quwatihim wa tamkinihim بإذن رب العالمين نسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه وأن يعلي مقامه في المهديين وأن يجعله مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وكذلك نعزي أسرته التي تضررت والتي آست أو أوذيت والتي تقبلت التضحية في السر والعلن وفي حياتي وبعد مما واثناء موتي وبعد مماتي ونسال الله عز وجل ان يربط على قلوبهم وان يشد على ازرهم ويجعلهم خير خلف لخير سلف والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله بسم الله. الله تعالى يقول اولا في كتابه ونقول ذلك لمحمد والامثال إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ويقول أيضا فمهل الكافر أمهلهم رويدا ولا تحسبن الله ولا تحسبن الغافل عما يعمل الظالمين إنما يؤخر من تشغل في الأبصار بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الكريم وأمته إلى اليوم العظيم هذه القصيدة مثية لفقيدنا الغالي المرحوم وبداية أبياتها ما قطر بحروف محمد المرسي أي في بكل حرف من حرف هذا الشيخ كتبنا بيتا بميم نقول محمدنا المرسل رحيل نشايع فقد كان للإسلام ليثا يدافع حملت لواء الفقر حملت لواء الفخر حتى تفزعت قلوب العدا للجبر كنت تمانع مرتنا لك الأيدي فسمعا وطاعة لنهد وعدل مع سلام نبايع دنوت إلى الرحمن بوركت أسوة مهدت لنا دربا وسوف نتابع أجل إن أحلامي إذا ما تحققت لإفريقنا مع دين ربي أصانع لمثلك أبكي لمثلك أبكي لا لمن مات في سودان حفظ كتاب الله ما أنت يافع من الله أرجو العفو لي ولراحلي ولأمة الإسلام كلا أشافح رحمه وعظمه وأكرم نزوله إلهي وأفلتنا فإنك رافع سلام على المختار سلام على المختار مع حزبه ومن لنصرتنا والعدل والخير جامع يبايعني من لا يريد مظلة لنصرة بلداني لها سأدافع المرتجر شاعر الإسلام خادم محمد حبله جوف سيبويه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته